subhaanahu wa taala mm-hmm. nga yëg ne lii nga sol ci yëre mm. mu mu mu awra mm-hmm. ba rafle woo tumu ranke mm. ka yor mérite bi doonul kenn ku yàlla subhaanahu wa taala du xaalis bi nekk si sa poos mhm. du sa pexe du sa mën-mën mais yàlla subhaanahu wa taala mooy ne toujours il faut nga nekk koo xamante ne dafa reconnaissant mhm. envers allah subhaanahu wa taala loolu mooy teggin wi ñuy jàngee ci xadisu <coughs> Muaad ibn Anas bi mu mhm. jëlee ci baayam Anas donc bis ni sabo solo saa boo solootee ba ñaan li nga xamante ne ñaan bi lang nga cay amee moo ëpp solo li nga xamante ne moom mooy yëre bi mhm. te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne mhm. yàlla da lay jéggal sa mhm. bàkkaar yi nga xamante ne moo jiitu macha allah alhamdulillahi allazi kasaani hada saw min gayri xawlin minni wala quwa maanaam heure boo soree maanaam chaque jour rek mbokk yi toujours ñu wax ko waaye ñu koy répété du wàññi dara amul denn dara lu ab jullit di def lu dul ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam am na ca njàngale mu ca jàngale loo xam ne boo ko ca defee da ngay jëf-jëf ja ba pare amaale tuyaaba moo xam lekk la naan la jëfandiku la sol yére la génn sa kër la dugg sa kër la yéeg sa oto la wàcc dem marché waññeeku ak foo mën a toll rek am na loo xam ne boo ko jàngee da nga aaru ba pare itam dana la yokku taar ba noppi itam da ngay am tuyaaba mbokk yi kon yooyu lu am solo la oustaz ñu ngi lay jaajëfalaat encore une fois oustaz Mouhamadul Amin Diop yàlla na yàlla dolli sàmm dolli sutura xam naa ngi daal dem jëli li nga xam ne dafa am solo lool ci waxtaan wi nga xam ne mooy laytaay bi gën a amati solo muy kaddu askan wi nga xam ne mën nga ko mën nga mën na doon sa kàddu yow kal borom kalandoo bi borom cag-cag bi wala sama yaay ja nga xam ne ma nga yore leketam di jaay la muy jaay bu ñëwee mën na poser question wala lu mu mën a doon dafay gën a am solo kon ñi jëlee kàddu askan wi te ñëw. li waral ñuy tiim nag moom mooy boo demee ba nga xam ni yow amooloo amuloo ndox bu set boo mën a jàppee loolu mooy waral tiim di am. tiim nag ku ñu ko war a def mooy koo xamante ni mooy koo xamante dafa am ngànt ba mu ne kuy tukki waaye koo xamante ni dafa teew dafa feebar amul dara te amul benn ngànt te warul woon ndox jàpp. mu jàpp moo gën mu tiim ndax tiim dafa am ay stade benn nga am boo xam ne wóor boo jàppoon ndox bi dina yokk sa feebar dina yokk feebar boobu nga am loolu a mooy ku amul ndox ku amul ndox war nga tiim wala ku am gaañ-gaañu boo xam ne ni ndox bi da koy da koy gaañ wala yu noonu kooku moom moo a tiim waaw ku am tolof tolofu ñàpp mooy tiim mais boo mënee jàpp rek waruloo tiim nit ki euh, daf day tiim bu fekkee dafa euh, amul ndox wala euh, ndox mi am na waaye mënu koo jëfandikoo peut-être santé may ko wala yu mel noonu euh, léegi nag PAM euh, bu fekkee nag euh, am amul amul ndox moo xamante ni moom la mën a moom amul ndox moom fi mu nekk amul ndox wala feebar na ba peut-être mënu ko mënu koo jëfandikoo boobu nag ci lay tiim. macha allah tabaaraka rahman oustaz kon gis nga élément bi mbokk yi kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci la aju ci wàllu tiim. xam naa ma bàyyi la commentaire balaa ñuy bëgg a dugg ci biir waxtaan wi mu gën a yaatu incha allah oustaz waaw euh, oustaz Biram xam nga d'habitude gars yi dañuy wax ne tiim dafa nekk loo xamante ne lu lu jafe la uh-huh. euh, donc lan ñan ñoo war a tiim ak mm. euh, ñi nga xamante ne mooy yan mooy sabab lu ñuy tiim mm. xam naa ne gars yi toog ci biir <laughs> sal salon yi uh-huh. mm-hmm. discussion bi tàmbali na uh-huh. mais incha allah suñu duggee ci thème du jour mm-hmm. dinañ xam ndax ñii ñu wax rek ñoo war a tiim wala am na ñeneen ñoo xamante ne tamit mën nañoo tiim. ndax ñii rek ñoo war a tiim wala am na ñeneen ñoo xam ne mën nañoo tiim kon njigéeli thème du jour ñëw nag dugg si biir waxtaan wi mu gën a yaatu mbokk yi incha allah bismillah macha allah oustaz Mouhamadul Amin Diop tey ñu ngi waxtaanee tiim tiim nag dafa bokk ci benn walla wenn yoon wi ñuy jaar wennaw yoon la ci yoon yi ñuy jaar pour mën a laab ndax laab mbokk yi moo lay may nga mën a sóobu si jaamu yàlla ga nga bëgg a jaamu yàlla lu am solo la am na am na am na am na cangaay am na jàpp waaye am na tiim léegi nag tey incha allah waxtaan wi danañ si ñëw tomb par tomb mën na nekk ñaar ba ñetti jotaayu waxtaan ñi ñi mën a waxtaan ak yéen lu aju ci wàllu tiim lan mooy tiim kañ lañ war a tiim ñan ñoo war a tiim lan la ñuy tiimee naka la ñuy tiimee yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw benn par benn waaye oustaz tey su ma la laajoon ne la maa huwa tayammum lan mooy tiim lan nga may jox comme laaj comme comme comme réponse oustaz Mouhamed <laughs> waaw oustaz Birama jazakallahu xayran mhm. euh, effectivement lan mooy tiim mhm. loo ama am lu ama am solo la mhm. pour que euh, kii jaamu borom bi subhanahu wa di di def ab act mu mm-hmm. li muy def moom mooy lan mm-hmm. signification wu tiim mm-hmm. euh, suñu fàttalikoo ci ginnaaw waxoon nañ ne laab ci diine lislaam dafa am ñaari jumtukaay ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi mooy ndox ndox te ndox boobu waxoon nañ ne liñ ciy jëfee jëfandikooye mooy dind sobe wala jàpp wala sangu set beneen jumtukaay ba moom mooy suuf suuf wala pàkk bu làpp <laughs> moo tax dañuy wax ni euh, tiim moom mooy at tahaaratun turabiya mm-hmm. tahaara turabiya tahaaratun mm-hmm. turabiya mm-hmm. tashtamilu ala masxi lwajhi walyadayni bi niya dañuy wax ni maanaam tiim laab laawin laabin la. Mm-hmm. bu ñuy defee ak suuf. Mm-hmm. bu ñuy defee ak suuf. laab la woo xamante ne laabug suuf la. est-ce que maanaam suuf si moo lay rendre nga laab. nga mm-hmm. purifié wu. parce que laab atte la goo xamante ne l'islam moo koy jox. moo koy joxe xukmu shar'i la. xukmu shar'i la waaw. woo xamante ni. mu nga ëmb. massa xar kanam ak ñaari yoxo. ci kaw yéene. ci kaw yéene. yéene googu dinañ ci ñëw incha allah bu mm-hmm. baax a baax mm-hmm. kii tiim lan la yéene mm-hmm. parce que yéene gi muy yéene wute naag kii jàpp la muy la muy la muy la muy yéene donc euh, laab googu nga xamante ne nit ki mu koy amee ci suuf loolu la ñuy tuddee euh, li nga xamante ne moom mooy tiim ñu gis ne dafa am ci anam wu muy amee moo tax ñu ne la tashtamilu ala mashil wajhi wal yadayni laabinuk suuf la mm-hmm. woo xam ne mu nga ëmb mm-hmm. kanam mm-hmm. ak ñaari yoxo mais ci kaw yéene boo xamante ne moom la ñuy yéene allah kon loolu oustaz amati na solo waaw ah, na nga leer na kon daal laab la goo xam ne si suuf lañ koy amee dafay làmboo xar kanam ak ñaari yoxo ci kaw yéene dinañ si ñëw mu gën a yaatu léegi nag lépp lu ñuy jàngale ci diine dafay am atte laab laabe suuf maanaam tiim lan mooy atteem maa xukmu tayammum lan mooy atteem ak loo ñu mën a gën a yaatalal pour ñu gën a xam tegtal yi ndax am nay tegtal ci biir alquran boo amee nga indil ñu ko ak itam ndax am nay tegtal ci sunna comme niñ koy jàngalee ci xadis boo amee tam nga indil ñu ko oustaz mu gën yaatu lan mooy atte tiim waaw jazakallahu xayran oustaz Birama tiim atteem moo di ne lu war la waajib la lu war la waaw ci képp koo xamante ni mm-hmm. mu ngay dund situation mm-hmm. yu koy permettre pour mu tiim mm-hmm. et foofu la dama damay insister ci ne atteem lu war la ngir ne képp koo xamante ni cause yi sabab tiim nekk ci yow bu boobaa dafay war ci yow nga tiim dafay war ci yow nga tiim dafay war ci yow nga tiim foofu li tax ñuy wax dafay war ci yow nga tiim pour ki nga xamante ne léeg-léeg cause yi waral nit ki tiim day ànd ak moom mhm. mu yéexal julli mu julli gi raw ko mhm. muy xaar ndox wala damay mhm. xaar ba am ndox wala muy wax naan wala mu seexlu tiim suuf suuf di tiim ak yooyu donc xukmuhu waajib atteem du lu ñu sopp du sunna mais waajibun lu war la maanaam kon baal ma de kon kii nga xam ne situation bu gaa gaar na ko muy patienté ba waxtu julli weesu kon kooku kon moom mën jàpp ne am na bàkkaar waaw parce que dafa bàyyi loo xamante ni moom moo dañ ko ko dafa war ci moom war ci moom parce que yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ni mm-hmm. su fekkente ne da ngeen a génne ci toilette mm-hmm. Mm-hmm. wala ngeen feebar wala ngeen jaxasoog jigéen te amoo leen ndox fatayam mamu na ngeen tiim donc ordre la Ah, ah, boo xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax mm. falam tajiduu maan fatayammamu saidan mm, mm, tayiban famsaxu bi wujuhikum wa aydikum min wa aydikum donc borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne moom la jàngale mm-hmm. donc foofu yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ay situa situation ay kaa la wax mm-hmm. koo xamante ne dund na situation yi nii dund na amulee ndox donc lan mooy solution bi yàlla mu joxe ordre mhm. fatayammamu fatayammamu na ngeen mhm. tiim mhm. saidan tayiban donc na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen tiim yonent tibi sallallahu alayhi wa sallama di wax ni fuddilna ala nnaasi bi thalath bi thalath yonent bi alayhi wa mu wax ne yàlla moo ñu gënalee ci nit ñi ci ñett mbir bi ci njëkk mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla def ñoo defal bu ñuy julli ni ñuy sàppee mu niroog sàppay malaaka yi ndeysaan est-ce moo tax ni ñuy sàppee bu ñuy julli mhm. doog gis ci beneen diine est-ce que est bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yàlla dafa bëgg boo leen di julli ngeen di sàppe comme ni di sàppe waaw yu rafet sàppe yu rafet est moo tax image boobu fi mu lay gën a lay gën a kiiwee mooy ngay suivre alamek la à la mm, bu nit ñi di julli. sàppe mm. bu ak ful bi noonu. Mm-hmm. wala bisu korite bisu mm. tabaski ci bayaal bi. Mm-hmm. donc noonu ñuy sàppe. Mm-hmm. dafay illustrer ni malaaka yi di sàppe ci kanamu borom bi subhanahu wa taala. ñaareel bi mooy li nga xamante ne. moom la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci li yàlla jagleel gi mu leel xeet wi gënale leen ci yeneen xeet yi mhm. mooy yàlla defal ma suuf si mhm. mu nekk bërëb wu ma mun a jullee di fa sujoote di fa sujoote masjidan wa tahuran beneen bi tamit mhm. moo di ne yàlla defal ma suuf si defal nañu suuf si mu nekk lu ñu mun a jëfandikoo jumtukaay bu ñu mun a jëfandikoo pour laab pour laab tax mu ne suñu amulee ndox Mm-hmm. ci beneen xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di mm. xadisu jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa wax ne uctiitu xamsan lam mm. yucta axadun min mm. al anbiyaai qabli mm-hmm. Mm-hmm. ci xadis boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne mm. nus eh, nusirtu bir ru'bi mm. masirata shahrin wa mm-hmm. ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahura mm-hmm. fa ayyama rajulin adrakathu salatu falyusalli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala moo ma defal suuf mu nekk li nga xamante ni moom mooy eh, jumtukaay bu mu mën a moo ma defal suuf mu nekk bërëb bu ma mun a jaamoo yàlla mhm. ak jumtukaay mu ma mun a utiliser pour laab mhm. masjidan wa tahuran mu mhm. toftal ci ne fa ayyama rajulin donc kenn amatul ngànt kenn amatul ngànt waaw fa ayyama rajulin adrakathu salaat bépp waay joo xamante ne julli dab na ko fal yusalli na na na na na julli beneen bi mooy xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci waa jooju nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli mu gis Euh, benn waay boo xam ne daa beru ne le toog àndut tak nit ñi di mm-hmm. julli mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu la tee ànd ak nit ñi julli mm-hmm. mu ne damaa ànd ak janaba te aw ma ndox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko doyoon na la nga jëfandikoo suuf pour laab nga def nii mu jàngal ko nit ñuy tiimee macha allah oustaz am na solo lool noonu nga ko jàngalee itam wax dëgg yàlla ci yi nga xam ne moo aju ci at tey tiim indi nga ay tegtal yoo xam ne si alquran ak sunna alquran ñëpp jàng nañ ko sunna ñenn ñi jàng nañ ko ñenn ñi réere ko waaye ya nga cay ndéep nekk na ahadis saxiixa yoo xam ne képp kuy gëstu nekk ndongo daara xam nga ne hadis yooyu nekkul hadis yi ñu duut baaraam maanaam daal kon tiim moom am mbiram yàlla moo ko njëkk a tegtale jàngale ko xadis ñëw gën koo leeral oustaz dañuy dugg si churut yi maanaam bu ñu waxee churut mooy jamoo charte yan ñooy charte tiim buñ buñ ko bëggee xam ci tënk waaw wala ci yaatal tax ci yaatal laa bëgg wax ci yaatal waaw ci yaatal churutu euh, tayammum mm-hmm. pratiquement moom mooy charte yi nga xamante ni moom la ñu waxoon ci bi ñuy wax ci jàpp mm-hmm. charte yi nga xamante ni moom la ñu waxoon bi ñuy wax ci jàpp ñuy wax ci jàpp sauf que mm-hmm. bu ñu ñëwee ba ci tayammum dafa am benn charte buñ cay dolli buñ cay dolli waaw kon tayammum moo ëppale wudu ay charte effectivement est-ce que loolu lu mat a bàyyi xel yam moom moo ëpp am na am na condition boo xamante ni. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ koy bàyyi xel ci tiim. Mm-hmm. te duñ ko bàyyi xel ci. ci jàpp ci jàpp. ce que dañ koy bàyyi xel ci tiim te duñ ko bàyyi ci ci ci ci ci jàpp. que condition boobu. donc condition yi ñu waxoon ci jàpp mooy nekk jullit. Euh, majeur. waxtu julli wi Euh, ak mm. li nga xamante ni mm. moom mooy euh, bañ a ànd ak ànd ak benn loo xamante ne day tee nga nga nga nga nga mën a nga li li nga xamante ni mm. moom la moom la tiim di dolleeku ci churut ci condition yu njàpp yi mm-hmm. moom mooy duxulul waxt moom faaw waxtu wi jot mom waaw moom faaw waxtu wi jot moom kenn du tiim di xaar di xaar di xaar di xaar waxtu wi dugg si hmm. fii nii ñu bàyyi xel waxuñu kenn du tiim di xaar julli mais kenn du tiim di xaar waxtu wi dugg si loolu faaw nga leeral ko maanaam kon <laughs> c'est-à-dire moom man nga tey bu ma dugg si jàkka ji xëy na dana gën a yaatu nag uh-huh. léegi boo doon dugg si jàkka joo xam ne amul foo mën a tiimee uh-huh. da tiim dugg wala nu mu demee noonu loo bëgg leeral foofu waaw dangay tiim dugg da tiim dugg waaw Mm-hmm. léegi xam nga tey jii nii ala sabilil misaal mm-hmm. tey bu fekkente ne suñu jàkka yi ñu mm-hmm. ñu dem ci heure yi ñuy nodd suñu jàkka yi nga xamante ne moom lañ bind ci jàkka yi li ñu bind ci jàkka yi mooy ne tisbaar quatorze heures la ñuy noddu tisbaar waaw donte ne waxtu julli dina dugg avant mais pour kii déglu mu mun a comprendre li ñuy waxee parce que charte bi laysa iqamatu salaa waxuñu charte bi ñu taxawal julli mais duxulul waqt duxulul waqt mooy wa julli bi nga bëgg a julli na waxtum dugg mm. xam nga tey jii nii nit ki mën na jàpp midi mm-hmm. di xaar tisbaar jot mm-hmm. donc kenn mun ta tiim midi mm. di xaar tisbaar jot effectivement mais bu waxtu tisbaar dugg see mm-hmm. nit ki mun na tiim mais loolu nag oustaz indi nga problème parce que ñun li ñu mel ñun suñ suñ dëkk bi mooy booy tiim dañuy liqaam ngay tiimaale <laughs> ah loolu lañ loolu loolu ñu miin loolu loolu la ñu bëri di jëf léegi nag lii nii il faut nga leeral ko pour ñun ñu xam ko parce que ñun ndongo daara yi ñun ñun néew gi doole yi ci wàllu diine liñ woon ba xam ko mooy ak li ñuy def suñu maam yi di ko def mooy booy jàpp mooy booy tiim dangay tiim ànd rek nga xam ne boo jugee ci tiim da ngay jigi rek kabar waaw waaw eh, léegi cest à def loolu mm-hmm. mënees na leen utel ngant mm-hmm. ci wàlluk sàmm gi ñuy sàmm seenug mm. tiim mm-hmm. ba du am jiixi jaaxa mm. parce que ki tiim mm. au moment où ñuy liqaam kooku am na certitude mm-hmm. que ne tiim na après bi waxtu bi duggee <laughs> mais juste rek pour wane mm-hmm. soo demee li ñuy jàng ci téere yi mooy du waqti duxuulul waqti walaysa iqamatu salaati mm, ñaar la kon yu wuute yu wuute mm-hmm. c'est-à-dire duxulul waxtu mooy waxtu yu dugg si mm-hmm. waxtu wi waxtu muxtaar bi quoi bi waaw mm-hmm. waxtu bi dugg si bi maanaam waxtu awwalul bi dugg see bu boobaa mën nga tiim différence bi rek boo ko bëggee xam mooy comme ni ma la ko illustré tey di nga gis koo xamante ne julli dafay jot mu ne ah sangu woon naa ci dix heures bi ma sangoo ba pare jàpp woon naa boo xamante ne bu ma yéenee mm-hmm. raf al hadas mm-hmm. donc kookee mm-hmm. xoolal midi une heure deux heures waaw donc deux heures de temps dox na ci diggante jàppam ak li nga xamante ne mooy mooy julli ci jàpp mais ci tiim munoo tiim midi di xaar julli tisbaar. waaw mënoo tiim di tëdd wala nga tiim di def leen dem doxe doxe ay soxla. donc charte bi mooy di mm-hmm. bi nga xamante ne bu ama am solo la. Mm-hmm. ci wàlluk tiim. Mm-hmm. moom moo di ne duxulul waxtu. waxtu bi dugg si bi dugg si. waxtu bi dugg si. bi maanaa tey su ma gisee nit koo xamante ne dama ko gis. deux heures jot. mu dugg si li nga xamante ne moom mooy jàkka ji. mu mu tiim. donc tiim na mhm. donc waxtu wi dugg si na mhm. wute naag ki nga xamante ni mhm. dafa tiim deux heures de temps dinaan xaarama tiim léegi di xaar tisbaar jot donc waxtu wi du xuulul waxtu moom mooy li nga xamante ne moom mooy condition bi ci wàllu kii bi léegi nag loolu tekkiwul que li ñu gis ñu koy def ci askan wi. Mm-hmm. loolu baaxul. Mm-hmm. waxuma loolu. Ah, mm-hmm. parce que ñooñu la ñuy def. moo di ne def lu leen may. certitude. mu wor leen ne. ci ku xamul li nga xamante ne. moom mooy duxulul waxtu ak yooyu boo tiimee moment bi nga xamante ne moom la ñuy liqaam. moo ne yow wóor na de ne. tiim nga ci. sécuriser nga sa tiim sécuriser nga sa tiim. effectivement donc pour ñu bañ a amal amal. gaam lu bees lañ indi mais indiwuñu lu bees. mais juste dañoo fàttali. Mhm. ne condition bi ñuy wax ci mhm. téere yi mooy mhm. du xuulul waxtu du xuulul waxtu nag waxtu bi mun a dugg ba pare kii léegi nag suñu see ci tiim gu nekk ñaata julli la ci nit mën a julli dina gën a leer lu tax mag ñi daan def loole ci bu fekkente ne ñu ngay ñu ngay julli macha allah macha allah kon daal loolu moom charte yi charte yi nga tënkoon ca njàpp rek moom nga dolli beneen mooy du xoolul waxtu bokkul ak iqaamu salaat wala iqaami salaat mhm. wala boog jëm bokkul jamono bi nga xam ne daal ñi ngi taxawal julli boobu boobu dafa gën a jege waaye duxulul waxtu bu jotee rek xëy na tiim nga daal di mën daal di mën a loolu bokk na ci ah, parce que euh, du du charte rek waaw ah. du charte rek ci tiim mhm. mais chartu sixatin sixati sixati chartu ah. ñoom dañ koy boole ci chartu mm. wujubin wa sixa wa sixa mm. donc mm. kañ la tiim di war ci yow ba pare boo tiimee mu wér mm-hmm. parce que loolu mooy chartu wujub wa sixa mm-hmm. mooy charte woo xamante ne condition la pour tiim mun a war ci yow bi maanaam mm-hmm. ki nga xamante ne qaama bihi sababu tayammum cause bi war a sabab pour mu tiim cause boobu ànd naag moom kookee bokk na ci li tax tiim di war ci kawam mhm. te bu tiimee tiim nga wér mhm. mooy duxulul waqt waxtu bi dugg si. Mm, mm, macha allah xam nga borom xam-xam yi ci surtout ci ngiruk Malik. ñoom mm. al ashurut dañ koy séddale. shurutu sixatin. shurutu wujubin. wa shurutu mm-hmm. sixatin wa wujubin. waaw donc charte bii nga xamante ne moom la ñuy wax. buñ mm-hmm. ko doon dugal. Mm-hmm. fañ koy dugal moo di ne charte la boo xamante ne dafay tax. tiim mu war ci yow. parce que sànq waxoon nañ ci attey tiim lan mooy attey tiim dafa war. donc charte wujubin wa sixa la buy sabab mhm. tiim gi war ci yow mhm. mais boo tiimee ba pare mu wér war wér mu war mhm. wér wér waaw du xuulul waxtu muy wi daal di dugg si macha allah macha allah oustaz lool am na solo ci ci war gi ak wér gi jeu de yi dafa am solo lool ci daara ji waaw léegi nag am na ñoo xam ne ñoom la ñuy may ñu mën a tiim ñan lañu ñan la ñuy may ñu tiim oustaz Mouhamed waaw euh, oustaz Birama euh, borom xam-xam yi ci seenu jàngale gu rafet dañuy wax ni tiim sabab yii mooy tax nit mën a tiim mhm. léegi boo waxee sabab bi mën na yaatu mais ñu koy tënk di wax ni juróom ñaar yii nii mhm. ñooy ñi nga xamante ne mhm. ñoom mën nañoo tiim mën nañoo tiim mais juróom ñaar yooyu boo ko xoolee seetantal ko génnuñu ci ñaari sabab yii nii génnuñu ci ñaari sabab yi ni muy ban ban mooy nit bañ a am ndox dañu am ndox wala mu am kat mu am ndox ba pare mais amul kattan tan ko mm. est-ce que <laughs> ñaari mm. sabab yooyu mm. sabab bu ci nekk dafa am ay suwar mm-hmm. loolu moo tax pour ki nga xamante ne mooy suivre RTS di suivre Dudal mm-hmm. ñu ñu ñu question bi nga laaj mu am solo mm-hmm. pour moom muy xool boppam ban cas de figure lay dugg ci ban cas de figure lay lay lay dugg bokk na ci ñooñu mhm. faaqidul maa il kaafi lil mm, maanaam awil ghusl mooy ki nga xamante ni mhm. amul ndox wu doy pour jàpp wala pour sangu mhm. ndox mi am doyul pour jàpp ndox mi mu am doyu ko pour jàpp wala doyu ko pour sangu set bu dee sangu set la fii nag la solos lan ma laajoon ca jàpp ak sangu set lan mooy faratay jàpp ak lan mooy faratay sangu set donc mm. foofu xam faratay jàpp ak mm. faratay sangu set mm. mooy déterminer lan mooy ndox mu doy ak ndox mu doy <laughs> mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. xam nga dañ laa wax ne ki nga xamante ne faaqidul maa il kaafi mm-hmm. lil wudu'i ak li nga xamante ne moom mooy maanaam am na ndox mais ndox mi mu am doyul ndox mi mu am doyul ndox mi mu am doyul léegi lan mooy quantifier wala hmm. euh, euh, qualifier ndox mu doy ndox mu doyul ndox mu doy mooy lan ndox mu doy hmm. ndox mi nga xamante ne mënees na ci jàpp hmm. mënees na ci raxas cëri jàpp yi cëri jàpp ndox mi nga xamante ne mënees na ci raxas cëri jàpp yi loolu moom mooy ndox mu doy su fekkente ne ndox ma nga xamante ne am nga ko du raxas cëri jàpp yi war cëri jàpp yi war parce que cëri jàpp yi war moom mooy raxas xar kanam mm-hmm. raxas say ñaari yoxo ba ci mm-hmm. can conc bi mm-hmm. massa sa bopp raxas say tànk donc ndox mi nga am bu fekkente ne matul loolu donc yow bokk nga ci ñi nga xamante ne amuñu ndox mu doy ni ki noonu tamit ndox mi nga am matul pour nga tooyal sa yaram bi yëpp ci sangu set Mm-hmm. parce que waxoon nañ ci faratay sangu set boo mm-hmm. dindee yéene kii nii li ci mm-hmm. aju ci ndox mi moo di ne taamimu zahiril jasadi bil ma nga tooyal li feeñ sa yaram yëpp ak ndox su fekkente ne amoo ndox moo xamante ne doy na pour nga tooyal sa yaram bi yëpp ndox bu boobaa amoo li nga xamante ne da ngay dugg ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee mhm. koo xam ne mhm. dafa ñàkk mhm. ah, ndox mu doy ndox mu doy pour mu mun a sangu wala mu pour mu mun koo mun koo jàpp macha allah kooku kooku mooy ki di jiitu ki nga xam ne amul ndox mu doy pour jàpp wala pour sangu effectivement juróom ñaar yi nga xam ne nee nga ñaara ko tënk sax dama topp def mu toll nii <laughs> juróom ñaar yi nga xam ne ñaara tënk ba ci jiitu mooy wala mi ngi tënku ti ñaar mooy kenn ki nga xam ne amul ndox mu doy pour jàpp ak sangu Mhm. loolu leer na kan moo ci topp oustaz ñaareel bi moo di ne mhm. faaqidul qudrati ala isticmaalil ma mooy ki nga xamante ni dafa ñàkk kattan pour jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy ndox donte ne am na ndox am na ndox mais dafa amul kattan pour jëfandikoo ah, ndox ni dana tiim ba pare fekk am na ndox est-ce que mhm. ah loolu lu mat lu mat a déglu macha allah cest nit ki mën na am ndox mais ndox mi amul kàttan bu mu ko jëfandikoo mm-hmm. amul kàttan mm-hmm. jëfandikoo mm-hmm. ñàkk kàttanam googu mun na nekk li maradin ki nga xamante ni euh, dafa dafa dafa amul kàttan bu mu jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy moom mooy ndox mi bu boobaa dafay dafay dafay dafay tiim par exemple ki nga xamante ne am na ndox mais ñu ngi ko jéng ndeysaan ñu ngi ko jéng waaw waaw yal na yàlla xettali mm. ñi caabi féete ginna amiin ki nga mm. xamante ni dañ ko tëj kaso mm-hmm. mu ngi nekk ci biir cellule bi mm-hmm. mu ngi gis ndoxu robinet baa ngi ne leen ndox maa ngi fële mm-hmm. heure julli jot na am na ndox parce que ndox maa ngi ci robinet bi mais fi mu nekk tëj nañ ko caabi féete na ko ginnaaw mhm. ba munte génn mhm. dem uti ji li nga xamante ne moom mooy ndox mhm. lislaam da koy may mu tiim wala ki nga xamante ne am na ndox mais menacé nañ ko menacé nañ ko ba munul jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy ndox wala ki nga xamante ne dañ koo dañ koo kidnappé dañ koo kidnappé yeew ko mm-hmm. fi ñu ko kidnappé yeew ko dañ koo kidnappé ko fi ñu ko kidnappé yeew ko heure julli jot na mm-hmm. xam nga julli wàccu ko même mm-hmm. <laughs> bu ko kidnappé heure julli jot na mu ngi gis ne ndox maa ngi nële. Mm, waaye munu see jot mais munu see jot. Mm-hmm. donc kooku la ñuy tuddee ki nga xamante ne. amul mm. kàttan. mën a jëfandikoo pour mun jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy ndox mi. est-ce que kon képp koo xamante ne. Mm-hmm. faaqidul qudrati mm-hmm. dafa ñàkk kàttan pour jëfandikoo ndox mi. kookee tamit dafay tiim. dafay tiim donc lii quelques illustrations la rek. par rapport nit ki nga xamante ne. am ndox waaye munu mais munu koo munu koo jëfandikoo. donc kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy ñaareel. mooy mm. keneen ki. mooy mhm. ñetteel bi ci mhm. juróom-ñaar mhm. mooy ki nga xamante ni dafa ragal bu jëfandikoo ndox mi feebar daal di koy dab mm. wala mu yéex a wér mu yéexal wér est que donc feebar da koy dab wala mu yéexal wér ñu ngi koy xamee ci wàllug aada d'habitude boo sojee soj moo xamante ne booy jëfandikoo ndox mi dafay yéexal sak fe wér wala mm. médecin wax la ne mm-hmm. lii nii mm-hmm. bul di ko bul di ko bul di mm. ko jëfandikoo parce mm. que daf lay tax sa feebar yokku kookee tamit l'islam da koy kon donc li ko tënk rek mooy nit ki nga xamante ne mm-hmm. dafa ragal bu jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy ndox ndox mi yokk feebaram wala mu mu mu mu mu yéexal mu yéexal ak bi moo di nit ki nga xamante ne dafay ragal mhm. su jëfandikoo ndox mi mhm. ab rab wala mhm. mbindeef muy lislaam wormaal mu daal mar ala sabil na ndox waaye bu jàppoo mais bu jàppoo da koy jural mar doomu aadama bi ala sabil misaal euh, li nga xamante ne moom mooy sunu bërëb yi séddale ndox yi société yi séddale ndox mi kenn mu wax ni société bi wax ni ndox dina tëj. Mhm. dina dina coupé. ci mhm. Dakar. Mhm. fii ak ñetti fan. am nañ benn bidon wu vingt litres ci biir kër gi. nañ benn bidon wu vingt litres ci biir kër gi. mais bu vingt litres bii nii. suñ jàppoo. dañuy mar. mar gi tamit niñ koy qualifié mooy mar goo xamante ne dafay tar. ba bakken xaj pas mar goo xamante ni. Mm. mar la nii rek. parce que léegi maru maru mar wu ñuy muñ. maru njaayeen rek waaw. Mm. mais bu fekkente ne mar la goo xamante ne gu tar la. Mm. mu wóor fii nii. soo kii nii dinañ mar mar goo xamante ne gu tar la. bu boobaa moom lañ ciy jublu. Mm-hmm. wala sax li nga xamante ne moo fi nekk ci ndox. Mm-hmm. su ma ko utiliser. Mm-hmm. par exemple ñun utiliser nañ li nekkoon ci kër gi ci ndox ba pare. ndox mi ñu réserver woon. pour may ko xar yi ci gétt gi. Mhm. wala ndox mi ñu it woon. Mhm. pour ñi nga xamante ni moom mooy bërigo. Mhm. bi nekk ci gétt gi moo des. wala ndox mi nga xamante ne moo des pour xaju gar gar xaj bi gardien wala xaj xaj bi bi sàmmkat bi. moo fi des. nga xam ne buñ ko utiliser xaj bi dina mar. boo xamante ne mën na faat bakkenam. mën na tax loraange dab ko. bu boobaa kookee tamit dafay. dafay dafay dafay dafay tiim. macha allah juróomeel bi moo di ne. koo xamante ne maalin zu baalin mm-hmm. koo xamante ne dafa ragal mm-hmm. su demee di wuti ndox mm-hmm. alalam ji nga xamante ne ju am valeur alal ji daf dafay ragal mu maanaam bu demee bu ñëwee fekk ñu jël alal jël alal bi ala sabilil misaal li muy illustré ci wàllu woowu mooy ki nga xamante ne baykat bi bay ba dara desul lu dul góob góob golo yaa ngi fi waaw yaa ngi fi donc mm. su demee di wuti ndox mm-hmm. boo moytuwul mm-hmm. alalam joojee mm-hmm. dafay yàqu soo ñëwee indal malikiya dañuy wax ne lan mooy alal jo am valeur mooy bépp alal joo xamante ne moo ëpp valeur ndox mi nga war a jënd pour jàpp est-ce que est-ce que <laughs> ala sabiril misaal dañuy jox bi ma liiree exemple bi dama xool ne l'islam dafa nekk diine joo xamante ne bu yéema la tey ki nga xamante ne ndox mu ngi jar ñetti dërëm te alalal ji muy alalam ji muy ragal. Hmm. mu ngi jar juróomi dërëm. Ah. donc sàmm alal bi la lislaam jiital. est-ce que Moussa juróom-benneel ba ban la. <laughs> juróom loolu loolu loolu loolu danañ ko yaatalaat incha allah euh, juróom benneel bi mooy ki nga xamante ne. xaafa min xuruj min euh, min isticmaalil maa i mm. xurujil waqt. ki nga xamante ne naam mm. am na ndox. Mm. mais cest dafa nekkoon ci yoonu tukki. mu amoon ay jafe-jafe bi muy yegg si. Mm-hmm. mu ngi gis ne ndox baa ngi fi. mais su ma naree dem ci teen ba root. Mm-hmm. bay jukki. Mm-hmm. heure julli bi dina ne pëng. mooy ne dinañ noddu timis ma illustré ko ci ki nga xamante ne mooy julli tàkkusaan nga xamante ne su naree paree dem rooti mm-hmm. ñëw pour jàpp mm-hmm. timis bi dinañ ko nodd bu ñu mm-hmm. noddee timis mooy heure tàkkusaan bi jeex na kooku dañ koy wax ne tiimal nga julli tàkkusaan est-ce que kooku itam danañ yaatal mu gën a amati effectivement juróom-ñaareel bi mooy ki nga xamante ne amul ku ko jottali ndox mm, amul ndox am na fi ndox am na fi mais ko jottali te amul ku ko jottali amul ku ko ko jottali est-ce que par exemple ki nga xamante ne yàlla subhaanahu wa taala dafa wàññi ay cëram ndeysaan te amul ndoxo ngi fi teen mm. baa ngi fii nii mm. robinet baa ngi fële mm-hmm. amul ku ko puus ba mu yegg fa ko kooku mm-hmm. dafay tiim wala ki nga xamante ne ñëw na ba ci peggu teen bi mu ngi gis ndox mi mm-hmm. mais fekku fa baag fekku fa baag bu mu mën a fekku fekk na fa baag mais fekku fa buum buum donc ñii nii mooy juróom ñaar yi nga xamante ne loolu mooy goj goj la tudd balaa colonel di la wax <laughs> colonel man dégg naa olof de goj loolu mooy goj <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax di ko nuyu bu baax a baax donc oustaz lii mooy juróom juróom ñaar yi mhm. te ñu ngi jàpp ne mhm. téléspectateurs yi suivre nañ ku ci gis sa bopp ci mhm. juróom ñaar yi ni rek l'islam may na la nga tiim macha allah ni ko oustaz jàngalee am na solo te itam exemple yi mu joxe ay exemple la mais ku ci nekk itam mën nga jël exemple bi nga xam ne moom mooy gën a mooy gën a adéquat par rapport ak milieu ba nga nekk nga adapté wu si te itam boo ko nattee rek nga xam ne dafay firi ñaar yam waxoon mooy que ne mënoo see jot wala itam euh, waxtu waxtu boo ko jëfandikoo waxtu julli wa daal di dugg xam naa ñi daal di njëkkanteeg waxtu usaan ndax waxtu waa ngay dem sama laaj la ñuy jëli bu ñu jëlee sama laaj ba pare doo ko jëlee leçon du jour si biir liggéey bi ñoo bokk ñu jëli sama laaj te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah yaa oustaz na ngeen def alhamdulilah dama doon laajte ki nga xam ne moom la yàlla nattoo feebar hémorroïde léeg-léeg moom tooy tooy bi génn ci ginnaaw wala ab sañe ndax loolu ab sobe la wala ab ndax day yàq njàppam ndax loolu ab sobe la wala ab ndax day yàq njàppam macha allah laaj bi am na solo laaj bi hémorroïde la hawla wala quwwata illa billah ay hémorroïde ku mu dalul doo ko xam yàlla ñu yàlla musal oustaz <laughs> laaj bi am na solo lool. Euh, yal na yàlla saafara hmm. wéral defal aafiya képp koo xamante ne moom la yàlla teg euh, jàngoro boobu. amiin incha allah musal leen ci yàlla defal leen ci aafiya. amiin amiin. donc euh, li nga xamante ne moom mooy tooy tooy boobu kii nga xamante ne moom la yàlla teg feebar boobu. tam hmm. koy sentir léeg-léeg ci mu koy gis ci yëreem ak yooyu. Hmm. certes li cosaan mooy ne sobe la. mais l'islam da ko koo baal. surtout su fekkente ne. Mm. dafay tooy tooy boobu dafay ñëw. plusieurs fois ci biir mm. lu fréquent. Mm-hmm. ci biir li nga xamante ne moom mooy journée bi. Mm-hmm. bu boobaa l'islam daf ko koy daf ko koy baal. Mm-hmm. Euh, day day parce que même bu doon julli sax mu sentir ne mu ngi génn. dafay continuer li nga xamante moom mooy moom mooy julleem. allah mais bu fekkente ne nag loxoom la utiliser. pour delloo li nga xamante ne moom mooy loolu génn. wala pour tooy tooy bi. loxo bi la ci takk da koy raxas. yére hmm. bi lañ koy la ko l'islam baal parce hmm. que soo bëggee toujours boo ko hmm. sentiree nga dem di raxas caleçon beeg yooyu loolu jafe-jafe da dafay ah, dafay ànd ak ah, donc raxas loxo moo gën a yomb raxas répétitif li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy yére donc dafa bokk ci an najasaatul maafuwu anha sobe yi nga xamante ne l'islam da ko baal nit ki ngir jafe-jafe gay dab doomu aadama bu bëggee dindi li nga xamante ne moom mooy mbir moom macha allah oustaz am na solo lool moom hémorroïde la boo xam ne daanaka ñëpp la jaaxal ñëpp la waaye daal ku yebu di laaj mag ñi ndax am nañ ci ay tegtal yoo xam ne dina lay gënal di dimbale du ñu docteur nag waaye ku yàgg ak ngoy di ngoy am naa ne daal ku mu dal fexeel ba di am karité na nekk quarité boo xam ne dafay mel ni genre donju nga xam ne boo ko defee sa gannaaw dina la dimbale lool lool tax waaw karité bi nga xam ne da ko mën a def sa gannaaw daal loolu daal moo ci tane ndax surtout boo amee buy génn moom dafa métti nag dafa métti lool tabaarkàlla xam naa eh, di jege mag ñi ndax ñoom comme yàgg nañoo ngoy daal di xam ngoy kon daal loolu baax na si gi dem jëli li nga xam ne moom moo di euh, leçon du jour oustaz mi ngi may reetaan leçon du jour bi buñ koy jëlee daal di ñëw àggale waxtaan bi incha allah <laughs> li nit di njort ci yow tamuy lu baax yàlla bi waaw ah, wallahi ndeysaan fa mu daanelee dem ba sidratul muntaha ñëw ñi di ko xaar iblis di xaar lu muy def mu xëy war mbaam sallallahu alayhi wa sallam aka woyofoon oustaz Mouhamed waaw Oustaz Birama macha allah ñu ngi jaajëfal euh, sunu sëñ Xaadim sëñ Xaadim Njaay Rachid macha mm. allah sunu mm. soppe la mm. yàlla na ko yàlla subhaanahu wa taala doollee sàmm ku yàlla may la tamit ci pirim alquran waaw am njaayeen bu am solo la waxal loolu rek moom moo am bu am solo la waaw sëñ Xaadim ñun dañu laa bëgg daal dégg nga <laughs> macha allah donc mu ñëw ci mbir moo xamante ne bu am solo la mm-hmm. mooy buntu yi seytaane di jaaree ci doomi aadama pour mun koo sànq bokk na ci buntu yooyu mooy yëg sa bopp yëg sa bopp moo tax Saas Birama xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale bu la nit di tagg mm. am nga ñaan booy war a ñaan waaw waaw allahumma laa tuaaxidni bi maa yaquluun waghfir li maa laa yaalamuun waj'alni xayran mimmaa yadunnuun ay yàlla waaw wallaay ndeysaan li nit ñi di wax bul ma ko jàppee mu ko firi ko la wallaay ndeysaan allahumma laa tuaaxidni bi yaquluun ñi di wax naan diw ak moo baax oustaz biraamu ak mu baax oustaz Mohamed yàlla nit ñi di wax bul ma ko jàppee mukk wa waghfir lii maa laa yaalamuun la may def ci lu ñu yëgul ci ay bàkkaar yàlla nag ma ko jéggal wallaay ndeysaan wallaay wajaal nii xayran mimma yadunnuun njort gu rafet gi ñu am ci man yow yàlla yàlla nag may def toujours may raw seenuk njort donc yooyu yëpp bu ko l'islam di jàngale mooy pour fatt benn bunt boo xam ne seytaane dafay wax ne mhm. ku xës ba ma duggee la ci buntu boobu xamal ne bokk nga ci samay ñooy mooy lan nga yëg sa bopp moo tax mu wax lu am solo bokk na ci buntu yooyu mooy doxalinu Abdallah ibn Mas'ud mm-hmm. mooy ngay dox léeg-léeg ñi dañ koy def nit ñi dañ lay yëkkati léeg nga tasee kenn ah oustaz da ngay wuyu téléphone waaw ma wuyu téléphone ndax bu ma la boo ma woowee mu wuyu la waaw Muhammad laay nekk wallaay ndeysaan donc amul benn amul benn problème donc nit ñi nañu wàcce wat seen bopp suufeel seen bopp ànd ak jaamu jaamu yàlla loolu moom mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax man tawaadaa lillahi hmm? rafaahu llah oh. ku wàccee sa bopp ngir yàlla yàlla yëkkati la donc nañu roy ci sang bi Moustapha waaw oustaz macha allah seen xaadim Ndiaye Rachid ñu ngi koy nuyu bu baax di ko bàyyi xel njaayeen bu bu bëri bu bëri bu bëri bu bëri ay ngëneel ki valeur tabaraka rahman macha allah waa ji si jàngale dafa dugg ci boutique bi dafa yeew rek dugg si bi waaw euh, dese nañ benn simili wala ñaar dafay yeew dugg si boutique bi ne day gënd ab kaye ab karne ne tey balaa may tëdd mboolem ku nekk nitu yàlla ci koñ bi dinaa la note borom boutique bi mi ngi sol benn faaru mbaamam ak ak caaya bu woyof nitu yàlla bu nekk ci koñ bi tey dinaa la noté borom boutique bi ne ko boo bindee sa ba pare nga bind ma moom dafa jàpp ne kii ab boutique rek ci xelam la wax ne tey dinaa bind mboolem koo xam ne nitu yàlla rek naa la recensé mhm. borom boutique bi pour yàlla di ko ilhamal di ko jàngal ne ko yàlla rek moo xam lu kenn xamut borom boutique bi ko boo bindee sa bopp ba pare maa ci topp. te borom boutique bi xamul woon. lan xamul woon maanaam waa ji dafa wax loolu ci xolam. Uh-huh. génn borom maire caaf bi ne ko boo bindee borom boutique bi bind sa bopp maa ci topp maire bi jaay caaf. maanaam même bu dee bu dee léeb la bu dee léeb la. li ñu uh-huh. bëgg a jàngale foofu rek mooy nit ñi. bëri na loo foog loo foog loo foog loo xam ne demeewul noonu. te li koy jàngale mooy sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne. law takashaftum ma tadafantum. Uh-huh. waaw moo tax kon loolu li muy firi rek. mooy kenn ku ci li la war ci yàlla kenn du la ko defal waaye nag nit dana la om teg la ci yoon wuy yombal jëfin woowee da nga dund si askan woo xam ne nag am na lu ñuy baal ñenn ñi te duñ ko baal ñenn ñi ndax nit ñi ñooy jëfe noonu waaye yàlla képp kuy ñëw ci moom yow dong ngay ñëw te boo ñëwee dina la jox loo xam ne da ngay jàpp ne yow rek la bindoon wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati fardaa kon ñi daal di gën a woyof nag di woyofal te itam bu la nit ñi yëkkatee itam waaw nit bu la nit ñi yëkkatee ndax yàlla mooy joxe cër nag wax dëgg yàlla am na nit ñoo xam ne yàllaa leen may fuñ na tëll ñu ne ma boo ne dama ne ñëpp déglu la waaye loolu boo bëggee mu oyof boo bëggee doo gaañu boo bëggee muy bëri barke delloo ko suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ne lépp moom la ndax jëmm ji nga taxawee kenn ku nekk si ñun moom jëmm jooju la taxawe waaye nag yàlla xëy na defal na def na ci yow loo xam ne defu ko say nawle ndax ñi lay liggéeyal ki lay dawalal ki lay garder ki lay fompal ki lay toggal ñoom cër yi nga am la ñu am ña cay góor ña cay jigéen cër yi say njaboot yi jigéen am la ñu am kon bu amee bu différence amee rek wolof moo ne suuf bu sutantee dañ koo jal comme wala fa ko wax nag ñu bàyyi xel yàlla suñu borom ci yooyu oustaz ñi ngi jéggalu ci guddal gi waaye comme waxtu bi moom moo desoon tuuti ñu bàyyi la nga tàggoo ndax waxtaan wi jeex na di la jaajëfal bu baax ci waxtaan wi am solo yi eh, eh, eh, oustaz jazakumullahu xayran axi oustaz Birama yal na yàlla fay la ah. macha allah ci fi ngay fële ci question yeeg yooyu <laughs> jazakumullahu xayran di wax rek ni tey jii nii bu ñu yàkkamti ci tiim parce que léegi léegi dafa nekk ay mbir yoo xamante ni. Mhm. Euh, yu ama am solo la. Mhm. nit ñi war a bàyyi. Mhm. loolu moo tax ñu koy gooto gooto. waaw gooto di ko di la pour yëpp pour mbir yëpp leer. gën a am solo donc bu ñu yàkkamti dinañ mm. ñëw ci nu ñuy tiimeek yooyu. mais dafa mm. am ay atte yoo xamante ne mm. moo jiitu loolu. moo jiitu ci wàllu tiim. Mm-hmm. yooyu bu leeree suñu bopp rek. Mm-hmm. incha allah li si des day yomb. macha allah di nuyu ñëpp di leen jaajëfal. Mm-hmm. di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala. nekk ci jàmm fanaan ci ngeen nekk ci jàmm fanaan ci jàmm defuloon njuumte bu ngeen di seetaan du dal kon bu leen toxal seen seetaan wéy leen di tepp suñuy programme ci RTS 1 ci kanam tuuti programme yi dafay wéy ñaan yàlla ñu fekkee alxames te weesu ko fu ngeen mën a ci àdduna yi leen di jaajëfal yàlla defal leen tawféex sàmm leen sàmm seen njaboot te barkeel seen yëngu di jaajëfal encore une fois suñu kilifa yi xam ne ñoo ngi liggéey bi ci kër